Eh, seen mbokk Abou Taha mooy ñëwaat ak yéen ci seen jotaayu warattilil Qur'ana tartila eh, di jotaay bi nga xam ne dañ cee ànd di jàngat eh, règle yi nga xam ni ci la ñuy jàngate wala ci la ñuy jànge alquranul karim tey topp téereb Tuhfatul Atfal di téereb Cheikh Souleymane al Jamzuri rahimahullah sunu jotaay bi passé ñu ngi taxe ak yéen ci buntub an-nuun as-saakina tanwin waaye agsi woon sax ci atteb ñaareel ba di al-gunna al idgham waxoon nañ ne idgham euh, juróom benn xaraf la am euh, di xaraf yi yarmaluuna saa bu ñu toppee ci nun gu sukuun nun nga day am atteb idgham saa bu ñu toppee ci tanwin kadalik day am atteb idgham waaye borom téere bi tamit junjoon ni xaraf yooyu dafa séddali ko ci ñaar xaraf yoo xam ni buñ leen di idgham dañ cee boole gunna ni woon mooy xaraf yi tënku ci baatu yan mu ñu joxe woon ci ay misaal ak yoo xam ni buñ leen idgham du ànd ak na eh, waaye eh, fi ñuy doore tey mooy sette gi nga xam ni borom téere bi def na ko ci sette ci idgham bi na eh, sette ci nuun gu sukun goo xam ni moom ak xarafu idgham bi dañoo bokk benn baat moom borom téere bi wax ni illa ida kaana bi kalimatin fala tudgham ka dunya thumma sunwanin tala yani ludul harafu xarafu nun nuun gi ñuy idgham bokk ak harafu idgham gi ci boppam benn baat bu ñu nekk comme baatu dunya wala sunwaan wala lu mel ni qinwaan wala bunyaan ñeenti baat yooyu ci alquran dañuy gis ni nuun gu sukun a idgham ci ndax bu ci dunya ci gu sukun gi dafa ci Eh, xinwaan ak sunwaan ak bunyaan eh, xinwaan ak sunwaan ginnaaw nun gu sukun gi waawa ci topp waaw daa bokk ci xuruf yan moo bunyaan tamit ginnaaw nun gu sukun gi yaa moo ci topp da caa bokk kon lañ cee dégg mooy atte bi idgham na waroon a doon waaye nag chartu idgham nun gu sukun ci xurufu yan mu da caa nekkul charte bi mooy nuun gu sukkoon gi jeexal baat xarfu idgaam gi door beneen baat kon bu fekkee ni charte boobu jóge na fa mooy kon léegi nuun gu sukkoon gi ak xarfu idgaam bi ñu bokk benn baat deesul idgaamati dañuy idhaar loolu ma nekk ci baat yooyu moo tax ñeenti baat yooyu ma tudd ci alquran naam nuun na sukkoon xarfu idgaam topp ci waaye kenn du idgaam dañuy idhaar dunya sinwaan qinwaan bunyaan ka annahum bunyaanum marsuus la ñuy wax kenn wax buy yaanun lu tax nag ñu génn baat yooyu yi ci qaacida bi wala lu tax ñu génne nuun gu sukun te diggu xarafu idgaam topp ci lu tax ñu génn ko ci idgaam di ko idhaar li tax mooy buñ ko idgaamee laps day am lënt day am ci lii ñu idgaam nuun la wala mudaaf la maanaam cosaanul idgham li nuun mudghama la wala tadif moo fi nekkoon maanaam mithlay ne moo fi nekkoon ci mithaal ñu jël wenn xaraf bi ko ci ci des ndax bu ma joxee mithaal ci sinwaan bu ñu idghamoon nuun gi ci waaw gi siwaan la ñuy wax siwaan waaye bu fekkoon ni yi nuun gi nekk waaw fi nekkoon gu sukkoon ñu jël waaw gi idgham ko ci waawug waan ba tey sëw waan la ñuy wax kon laps mën naa am ci lii ñu idgham lan la ndax nuun ga gu ñu idgham ci waaw gi walla waaw gu sukuuna fi nekkoon ñu idgham ko ci moroomu waawam kadalika yeneen baat yépp ndax mbokk yi borom subhanahu wa wax ji mu wax ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun day feeñ ba ci ahkaamu tajwid ndax fii mi ngi sàmm baat yi ci lënt bañ am ci cosaan ci cosaanul li ñu idgham lan la ndax bu lënt amee ci cosaanul li ñu idgham lan na rek lënt mën naa am ca maanaaya <laughs> boobaa jafe-jafe day daal di am moo tax fii dañ koo génne ci qaada bi mooy nun gu sukuun ak xarafu idgham bu bokk benn baat moo tax mu ne illa ida kaana bi kalimatin fala tudgham joxe ci ñaari misaal ka dunia thumma sinwanin tala léegi nag ñu ñëw ci alqismu thani ci aqsaamu al idgham mooy idgham bi xayri gunna moo tax mu ni wa thani idghamun bi xayri gunna fi llaami warra thumma karriranna bu ñaareel bi ñaareelu qisme bi ñaareelu xaaj bi ci aqsaamu al gunna al idgham kon mooy idgham bi xayri gunna xism bu njëkk bi mooy idgham bi xunna idgham joo xam day ànd ak xunna xism bu mooy idgham bi xayri xunna joo xam ne du ànd ak xunna da ngay jël nuun gi dugal ko ci xaraf yi wala nga jël tanwin gi dugal ko ci xaraf yi ta yem ca doo xunna nee na loolu yi fi laami war ci ñaari xaraf lay doon lam ak raa ndax waxoon nañ ca jotaay yële ni xuruuf idgham yar yarmaluna la xuruuf idgham bi gunna yan muu la yan muu ñeenti xaraf la yarmalu na juróom benn xaraf la bu idgham bi gunna jële ñeent yi la shakk ni ñaara ciy des ñaar yooyu ci des nag mooy laam ak raa moom la idgham bi xayri gunna jël kon idgham bi xayri gunna dañuy idgham nuun gi ci laam gi wala ci raa gi wala tanwin gi ñu ko ci laam gi wala ci raa gi te du ànd ak gunna idgham kese lay doon bu ñu joxee ci raa lu mel ni min rabbihim min rabbihim nuun googi di nuunug min dañ koy idgham dañ koy dugal ci raa uk rabbihim te du ànd ak gunna bu dee tanwin lu mel ni min thamarati rizqa thamarati rizqa tanwinuk tin googu ci thamara dañ koy idgham ci uk rizqa te du ànd gunna bu dee laam lu mel ni mir min ladunhu nuun sukun na laam topp ci ñu jël nuun gi dugal ko ci biir laam gi te ànd la gunna kadhalika bu dee tanwin tamit misaal mu mel ni hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin tanwiinuk hudan dañ koy idgham ci laamu lil muttaqin te du ànd ak gunna lu tax mooy ñaari xaraf yooyu ñoo bokk ci xaaj bi nga xam ni dañuy idgham kese te duñu gunna kon bu ñu tënkaatee mooy idgham taarifoon nañ ko jotaay bële mooy jël aw xaraf dugal ci moroomu xaraf wa ca kanamam ñu mujj nekk wenn xarafu shadda ci buntub an a as saakinu tanwin juróom benn xaraf la fi am mooy xaraf yiñ tënk ci baatu yarmaluuna moom baatu yar yarmalu na googu juróom benn xaraf ci nekk dafa séddale ko ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy baatu bi yanmu xarafi yanmu bu ñu toppee ci nun gu sukkoon wala tanwin dañuy idgham boole ci dañuy idgham boole ci gunna na nag amali yàlla boo xam ni fii lay jóge ci xay xaysuum yaxu bakken na ci xay xaysuum lay génne wa gunnatun maxrajuha alxaysuumu alxaysum mooy yax gii nekk ci biir bakken moo tax kiy jàng ba toll ci na da yëg ni gémmiñam ak lim ëmb lépp di tuñ yaag làmmeñ waag biir put fi xaraf yi di génne yépp dañu tekk ndax lan amaliya bi mu toll fi mu ne nii seen yoon nekku ci du génne foofa fu muy génne mooy ci biir yaxu bakken xunna moom mii ni ci xaajub yan mu idgaam gi day ànd ak moom waaye ci chartub nuun gi ñuy idgham ci xaraf yen mu bu ñu bokk benn baat nuun gi ak xaraf bu ñu bokk benn baat bu ñu bokkee benn baat rek dee su ko idghamet dañ koy idhaar ndax dañuy bañ eh, ak lënt am ci cosaanu liñ idgham lan la nuun lañ idgham wala eh, benn xarafa fi takraaroon ñu jël benn bi idgham ca ba ci des ñaareelu xaaj bi mooy xaaj bi dul ànd ak xunna laam ak ñoo fa nekk da ngay idgham ci raa gi idgham ci e, ci ci laam gi moo xam nuun la wala tanwin waaye du ànd ak xunna mu ni thumma karriran na raa nag nga bàyyi xel ne am na sifatu at takrir wala at takraar daañu wax ñaar yépp bu ci baabu sifatul xuruuf ci téer yi jàngale sifaat ya xam ne amul dëdd am na ca sifa gu tudd at takrir la xarfu raa ko fa am léegi nag bu fekkee ni raa gi idgaam nañ nun gi ci moom wala tanwin gi shadda ko moytul mu ëpp maanaam takrir gi fi nekkoon bu ànd ak shadda gi moytul mu ëpp waaye moytu ko xañ nag sifaam baatu fi makarran na dalay wax ni moytu koo xañ sifatu at takrir ci bàyyi xel euh, shadda gi nekk ci kawam ma ngoog ñetteelu atte bi kon ci buntub nuun gu sukun ak tanwin ginnaaw bi nga xamee ne gis nañ atte bu njëkk bi di idhaar gis atteb ñaareel bi di idgham atteb ñetteel bi mooy al iqlaab tere bi nee na wa thalithu al iqlaabu miiman bi xunnatin maa al والثالث يعني الحكم الثالث من أحكام النون الساكن والتنوين الإقلاب mooy iqlaab iqlaab nag ci wolof mooy dëpp mbir bu nekkee nii nga wëlbati ko mooy dëpp nga ko nun gu sukun wala tanwin ci alquran léeg-léeg daañu ko dëpp jànge ko waneen xaraf te xaraf wañ ko jàng mooy xarful miim lu tax mooy day fekk baa topp ci day fekk xarful baa topp ci nun gu gi wala topp ci tanwin gi بن جخي مثال لمني من بعد من بعد من بعد لون واي نون جي دنكو دب جانجي كو ميم ولا لمني لا ينبذن ولا لمني تي مثال لا كان لا نصف عن بالناصيه تي تنوين لا نصف عن بالناصيه النجم أسلوب تنوين غوغي نون غسكون لون نون نون نون توكيد خفيف وعيت الرسم العثماني دنجو يبندي بالتنوين واللملني تنوين بتاي سميعا بصيرا غاجيس ني بودي تي نون يلا ولا تي تنوين ييب نون غي اك تنوين دنجو قلب ميم جانغي كو ميم واي ميم غوغي دنجو اخفاء loolu mooy atte miim gu su wala miim gu sukun bu ci baa toppee buñ koy iqlaab nag de ko jànge miim bi gunna day ànd ak gunna maal waaye ixfaa miim gi kon doo miim nga ko jànge doo ko izhaar waaye da nga koy ixfaa waale te bàyyi xel gunna am na sew-sew nag bu nekk foofu boo xam ne wuute la ci boroom xam-xamu tajwid yi ci buntub iqlaab mooy booy iqlaab miim nuun kon di ko jàng miim wala tanwin di ko jàng miim dangay tark furja wala doo tark furja lan mooy lool am na ñoo xam ne bu ñuy jàng iqlaab dañuy kebele seeni tuñ bam tëju ràpp lu mel ni la yumbadanna am ñoo xam ne bu ñuy iqlaab dañuy bàyyi ab diggante bu sew bu tuut ci seeni tuñ la yumbadanna li ma njëkk a def moom lañ tuddee adamu tarkil furja li ma mujjee def moom lañ tuddee tarkul furja foofii nag moom la ma fay wax mooy fil masalati qawlaani am na ci borom xam-xam ñoo xam ni tarkul furja lañ gën a tarjix lañ wax ni moom moo jaadu képp kuy jàng ba ak ci iqlab da nga war a bàyyi as diggante su ndaw ci sa diggante ñaari tuñ am ñoo xam ni leneen lañ tar tarjeex mooy kuy jàng ba ak ci da nga war a kebele sa tuñ ba mu tëju ràpp waroo tark furja ala kullin masala moom boo ci dem rek borom xam bind nañ ci yaatal ci eh, ta'yid ko am ñeneen ñoo xamante ni ganeen gi lañ ta'yid Eh, ànd ak li gën a li gën a li gën a li gën a lëng ci sama gëstu ci sama gëstu eh, ci sama liir ak masaayix yi nga xam ni dinaa jokkook ñoom di jàng ci ñoom ak di leen laaj ñu may ubbee mooy tarkul furja tarkul furja kon eh, masala mu mu sew la tamit bàyyi xel waaye laajul laajul tamit xuloo bu metti wax dëgg àlla ndax eh, nit ki ko def ak ko defut taxul mu yàq maanaa mi wala mu dugg ci ñu ni mu jàngee alquran ji du noonu ndax masala wuute la ci diggante boobu kon daal ñu bàyyi xel ni eh, attam ñetteel mooy iqlaab eh, dëpp nuun gi wala miim gi jànge ko nuun gu sukun gi kon wala tanwin gi jànge ko miim gunna ci jamono biñ koy iqlaab waaye tamit boole ci daadi إخفاء والغن ميم جتوت موي نبكو ترك فرجة ولا بني ترك فرجة إن شاء الله نيتلو ولا نينتلو أتى بيت أحكام النون سكن التنوين موي الإخفاء من برم تيرا والرابع الإخفاء والرابع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع الإخفاء نين تيلو أتبي أحكام النون الساكن والتنوين ما الإخفاء عند الفاضل يعني عند البقية لنغا خمني مودست الحروف الهجائية قلنا بيغا جني حرف نيت أتي جال دي حروف الإخفاء دي حروف الإظهار كن أك حروف الإدغام أك حرف الإقلاب ba nga génnee fukki xaraf yooyu ak ñett xaraf yi ci des yëpp ci xuruful hijaay yi te war a toll ci fukk ak juróom ne na yooyu yëpp mooy xuruful ixfa ci buntu annuunu saakina wa tanwin moo tax mu ne war raabiu bu ñeenteel bi al ixfa u mooy ixfa maanaam gu sukoon gi inda al faadili la ca des ci xuruful hijaay yi ginnaaw bi xaraf yi la génnee min al واجب للفاضل نن اخفى حرف يوي اخفى نون ساكن نون حرف يوي واجب داور للفاضل يعني للقارئ الفاضل غنيارل يعني قارئ القران لجبل نخي صلى الله عليه وسلم مو جنجو افضل ايام اك خير ايام خيركم من تعلم القران وعلمه لول ما تباي خيل كون حرف يي تي الحروف الهجائيه غيناو بيغا خميني ñett juróom benn xaraf yi idhaar génn na di hamzaak ha ayin ha gayin xa juróom benn xarafi idgham génn na di xarafi yarmaluuna benn xarafub ixfa génn na di xarafub albaa benn xarafu iqlaab kon juróom benn xaraf yooyu ci des mooy xuruful ixfa yan la ak lan mooy ay misaalam incha allah suñu jotaay bii di ñëw dina gën a leer dañu taxaw fofu yene ngi àndoon ak Abou Taha ci seen jotaay warattilil Qur'ana tartila genn ko suivre ci ahlulquran.com wala ci compte YouTube bi ahlul Qur'an wala la maison du Coran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله الله Allah Allah Allah